vraiment. Mm-hmm. dañuy ñëw juste si si benn actualité comme ni nga koy waxee des fois day am sujet surtout loo xam dafa laal diine day sensible gis nañu euh, fan yi dafa am benn waay boo xam ne ne dañ ko jël weer ko ci internet bi muy ñu bëri xamee ko nag ci diine mu tabax ay jàkk comme ni ñu ko waxee jàngal ay nit ak leneen ak leneen ñu gis ñi nga xam ne ne kuréelam la ñoom ñoo génn weddi ko ndax nee nañ da doon def lu bon. Mm-hmm. muy euh, sëñ. Euh, Moodu Moodu Lo mhm. Mhm. jot loolu jot naa ko dégg sëñ Moodu Lo Ngabou parce que booy xool man Touba mosuma foon dem quoi. Mhm. doon ma faral di dem màggal mais suma première màggal man ak max sëñ Moodu Moustapha Amar moo ñu yóbboon quoi. suñ première màggal man bi image yi di génn affaire yi man bàyyiwuma ci xel quoi parce que man je ne je ne vais pas me fier ci ay information wala dara quoi lépp loo xamante nii dama koy gëm. day nekk loo xamante ni tey jii nii am naa ci lu ma wóora wóor am ci seede yu xam nga mi ngi noonu tu vois mm-hmm. te yàlla dafa sàkk nit suturaal ko quoi nit la gën a gën a gën a fonk ci ci ci ci lu mu sàkk mm-hmm. première màggal bu ma dem yàlla def nañ ñun dem nañ ba ci bërëb ba man ak man ak Mahfous démb rek la may woo di ma ko rappeler naan man tu ne plus xam nga ma ne ko si moo expliqué ma quoi mm-hmm. ma xam ne man mii kat sëñ bi dem nañ fa ba saafonte nañoo ak moom yàlla xam na ni maa ngi fàttaliku lépp lu ma fa jëlee woon jàpp naa ci bërëb ba julli naa fa def naa fa lépp xam nga tu mu nekk loo xamante si ni tey yii nii yàlla def na lii nii donc buñ ci acharné wu parce que nit matul quoi moom taxawul ni mooy yàlla taxawul ni mooy yonent bi mun je ne fais pas l'avocat du diable mais je parle en toute objectivité quoi taxawul ni mooy yàlla taxawul ni mooy yonent bi nit taxawaay nit la taxawee quoi donc nit bu juumee xam tey jii nii dañu nangu lool mais bu ñu acharné wu ci ci yenn yi xam nga di toroxal nit wala dara parce que nit boo ko toroxalee wax dëgg fa yàlla wax dëgg fa yàlla yàlla yàlla dala koy wan quoi vraiment tu man je suis de Tivaouane mais tey jii nii taalibe laa quoi mais tey doo ma xool boo ma xoolee takk da nga naan kii Baye fàlla la donc tu vois ñun ñëpp benn lañ murit tijaan xaatal laa laayeen quoi kon nañ rafetal diggante yi. man damay mbëkk damay def lépp ba ma liyee dama lay sujootal lépp mais tey jii nii tey li may gëm gëm naa ko mais ñun ñëpp ñoo far quoi pays musulman la nañ rafetal jikko yi quoi parce que Sénégal tamit ni ma koy waxee rek jàmm moo fi xaj quoi vraiment fii ku fi indiwul jàmm doo am jàmm wax dëgg fa yàlla nañ rafetal diggante yi waaw wàññi wàññi yenn yi te suturaalante suñ biir quoi parce que boo suturaalee nit yàlla dina la suturaal mi na wax dëgg fa yàlla.